yàllaan bi comme campagne électorale bi fi mu toll nii fa ñoo toll ci wërngal bu mujj bi maanaam ay bés moo ci des ndax dimanche bii di ñëw ci la ñuy wote ba tax si du quotidien vox populi le soleil yéene kaay xëy di ñu ko xamal ba pare nag fañ caa yokku ne candidat yi ñu ngi dagaan baatu askan wi fañ leen di dikku nekk naan su ngeen ma falee faa leen di defal lii faa leen di defal laa maa gën ci yéen boole ci nag fañu ñu joxe seeni programme 24 heures yéene kaay bés bi yéene kaay ba ca ñoom fa ñoo gis ne li gën a fës ci campagne bi mooy diirante mbagg wujjee attaqué wante bu dox ci diggante candidat wu benn bokk yaakaar maanaam Amadou Ba ak candidat coalition Diomaye président muy Diomaye l'évidence yéen a kaay mel ni ku naan ko suñu waxantee dëgg nag cinquième président bu Sénégal jomaay fay lay nekk wala mu nekk Amadou Ba ndax ñoom ñaar ñoo ëpp mbooloo ci li ñu gis ci campagne bi bés bi yéen a kaay ne ñoom ñaar ñëpp nag ay inspecteur lañ domaine fa ñoo imposé nag débat seen diggante Diomaye Faye fa wax ne Ziguinchor fa waroon a nekk capitale économique ak culturelle bu Sénégal Amadou Ba ne ko waaye yow looy wax nii yéet téet xam nga li mooy firndeel na yow xamoo fi ngay taxaw fa ngay làmbatu may wax nga yokk ci yow jamaay fay di wax wàllu monnaie xaalis boo xam ne Sénégal génn ci CFA yu ma la mënta wax gis nga loolu mooy firndeel na yow Bassirou Jamaay Fay ak Ousmane Sonko danger ngeen ci réew mi kenn du leen ko jox Jamaay Fay na ko pare nga Amadou Ba déglu ma faa tontu yow ab fonctionnaire kottu nga te fi nii milliardaire lu ma bëgg nga def sa déclaration de patrimoine ndax man jomaay fay faa koy def dinaa wax sénégalais li ma xam bala ñu maa fal ba tax enquête yéen a kaay na guerre fi mu toll nii moo dox diggante jomaay fay ak amadou ba réew mi yéen a kaay ne amadou ba kay fi mu toll nii fa dëgëral ay kàddoom fay attaqué bu baax jomaay nee na kenn waru ko jox réew mi ndax dansé la ousmane sonko fa wax jomaay fay na ko may ma amadou ba ngir yàlla ndax man faa ko xam bu baax ma wax sénégalais yi li tax waruñoo fal amadou ba ndax baaxul ci réew mi te nag moom amadou ba def na lépp lu mën ay pexe ngir man ak jomaay fay buñ génn ci kaso gi xam ngeen lu tax lii la doon bañ suñ topp ñu mbooloo mi looloo ko tiital yor yor yéen a kaay mel ni ku naan ko li nga waxee dëgg ndax diwaanu Ziguinchor yéetéet bi fa jomaay ak Sonko demee mbooloo ma fa nekk kenn xamu nu mu toll fa bëri ba tuuru bay rembat foo ko natt rek weesu na ko digg bëccëg naaj wu tàng jër ci weeru koor yi diggante Ziguinchor Bignona Sédhiou fa ngay xool ba fa sa yem Amadou Ba na leen waa léegi yéen xanaa gisu leen man na ma def Tambacounda Kédougou Vélingara ba Kolda faa ko dëbb ba mu nooy indépendant yéen a kaay na ko li nga waxee dëgg de yow moom fa ngaa wàccee dëkk yooyu nga wax waa Grand na leen xanaa fa ngeen mu mag la maire ba Amadou Ba wal fajiri yéen a kaay ne jongante bi dëgg nag diggante njiitiram Macky Sall ak Sonko ndax ñoom ñaar ñëpp ku nekk yaa ngay jàppale sa candidat ngir mu jël ndam li bés bi yéen a kaay na ko faay dëggal li nga wax ndax njiitiram Macky Sall fay wàcc ci terrain bi dem ca wetu Amadou Ba jàppale ko ci altine ji ca diwaanu Kaffrine la koy fekk ànd ak moom campagne si jamono jooju Ousmane Sonko moom ma nga ànd ak Jomaay di campagne Vox Populi na leen dëggale a gën a fës am ne ñoom itamit wax dëgg yàlla ñi ngi campagne bu baax baax ngi wax ak askan wi te mbooloo mi ngi leen topp yaw seetal Déthié Fall ci la bokk moom ma ngay wax ni mu nar a suqalee Sénégal buñ ko falee rawatina wàllu mbay mi napp gi ak càmm geeg yi ni mel Pape Djibril Fall nee na Sénégal gi gën moom la fi nar a andi Thierno Alassane Sall mébétam mooy fexe am ay hôpital yoo xam ne fa ñuy toxalu fekki askan wi Idrissa Seck ma nga woon moom ca Guédiawaye ak Parcelles yi ni mel fa wax ne om d'état bi mu doon am expérience fa la nar a jaar ngir suqali réew mi Anta Babacar Ngom nee na man sukkandiku kaay laa en tant que soxna ak ndaw ngir mi ne Khalifa Sall tamit ma nga woon ca diwaanu Kaolack ndàngaam ma ngay leeral programme am ak fi mu jëmee réew mi libération na ko faala ci yokkal Khalifa Sall nee na moom mooy garantir juboo benn la sénégalais yi l'observateur ne Serigne Mboup moom ñetti ponk yi nga xam ne fa la bëgg a jaar ngir suqali Sénégal bu ñu ko falee mooy daara ji tool bi ak pénc bi libération na ko Boubacar Camara moom suqali napp gi la wax Malick Gakou wàlluk industrie ngir suqali réew mi Cheikh Tidiane Dièye ma nga woon ca Ross Béthio source a ne waa nag fi mu toll nii fa ñoo tànn nekk ay arbitre ci wote yi comme ñoom bokkuñ diwaanu ndar ñoom fa ñoo wax ne jomaay fay la jàppale sonko am na ñeneen ñu jàpp nag ne pds fa war a dem jàppale ay mbokkam muy libéral yi Lamine Thiam nee na ñu bari ñu ngi ñëw di ñu ngoro pour ñu jàppale leen waaye Ablaye Wade daal moo yor kàddu gu mujj ki turbine yéen kaay ne Bougane Gueye Dany tamit ba léegi waxut kan lay jàppale kenn ku bokk sa ña yor wàllu communication ba fa wax ne ñun daal Bougane la ñuy déglu tànnagut nag benn candidat moom ministre diaspora nee na moom taxawal buñ ko falee président ma ngi ko waxee ci libération Mame Boye yi moom la addu mooy ne ci campagne bi fa ñoo seetlu ay politiciens dañuy def loo xam ne daal wax dëgg yàlla mënoon naa ñàkk daal rafetut yaaw seetal politiciens yu bëri suñ demee ci dëkk di campagne fa ñuy jël ay xale yu ndaw nen na tuuti yi di leen yëkkati aka raayaka fóon aka su ko defee ñu naan ay ndeysaan xolal candidat bi kii fa am yërmande ci xale yi xolal ni mu bëggee xale fekk loolu yëpp dara leen ci gëmut seen campagne bi nañ wax ak ñu leen di wote te bàyyi xale yi ñuy fopp te daraa ci wóorut sax yéene kaay bi wane photo Amadou Ba fa ŋàbbu ab xale Aliou Mamadou Dia bu ak ñeneen nag ñoo ne def nañ ko la mu fas yéene def moom Thérèse Faye mooy jàppale Amadou Ba ndax njiitëram Macky Sall fa koo dalal naka noonu Awa Gueye tamit fay jàppale Amadou Ba direct news moo ñu ko xamal les si ko yéen kaay ne njiiti fa wax soxna yooyu dalal na leen jàppaleen Amadou Ba ba pare génne nañu ay moyens de xaalis Ndakaaru Njaay moom futa Amadou Ba yaa ngi fa fees del comité yi ñu samp ku nekk jox nañ la six millions <laughs> leer laneen lu leer ba yegg ca nañ ja mooy ne ñu ne déetewaay mbootaay réewu dix yi fu nekk fañ fa yebal seen ndaw ngir ñu saytu wote yi libération moo ñu ko xamal info yéen kaay la mu ñu xamal mooy détail fichier électoral bi la ca nekk bokk na ca ñi war a wote 24 mars bi sept millions trois cent quatre-vingt-un mille huit ay électeurs moo ci nekk ci ñoom ñooñu trois cent trente moo mille quarante ay bitim réew lañ nekk dëkk bi nga xam ne nag moo ëppale ñu nar wote mooy diwaanu Ndakaaru foofu électeurs yi xam ngeen ñaata la un million huit cent vingt-neuf mille huit cent vingt-trois diwaanu Thiès moo ca topp un million électeurs lañ am yu toftal 3310 diwaanu Diourbel ñoo ca topp 645 793 ci ñoo xam ne ñoo war a wote ngeen déggee ci ne ñetti diiwaan yi ku ko gañee boo moytu da dégg monsieur le président de keneen ku déggoon monsieur le président de la république déggaat ko déggaat ko déggaat ko du kenn ku mooy njiitu réew bu Russie Poutine gagné na élection yi de 87 pour cent a kaay moo ñu ko xamal la mu ñu xamal moom l'observateur mooy mbir mu yéeme yaaw seetal fa xam benn éleveur maanaam yarkatu jur daal jabaru jàmbur ba pare yemut fa de fa ko war na loo lor ay yëf yaa nga amee ca diwaanu mbuur hmm, waa ma ñaari kaala de siif jigéen violé kaala léegi moom fa siif jabaru jàmbur ba pare nag wann loo ko lor noo ëpp na ñaar trois kaala xaw ma fooy mu jëg moom